bokki jullit yi bokki téléspectateurs yi nga xam ne yéen a ñuy topp ci seen euh, site bi chaîne de télévision bi di MK TV di jollee fii ci Jumaay Touba euh, am nañu mbégte ak bànneex euh, jàkkaarloo waat ak yéen tey nag ni ko baaxoo di defee ci fan yi weeru gi saa bu ñu demee ba waxtu dog ñu dalal fi ay borom yi xam-xam waaye dalal fi tam waa dëkk bi ñu ñu xam ci yoon wi tey nag mbégte la ñu am dalal fii kenn ci koo xamante ni yaakaar naa de su ko présenté ci diwaanu Touba diwaanu Bawol rawatina ci région de Diourbel waaye tam ci réew mi ci ngir taxawaayam boo xamante ni am na solo lool mu ci docteur Souran doon koo xamante ni ku ñu ràññee la ci wàllu uh, faj ak uh, wér-gu-yaram docteur Souran ginnaaw bi nga xamante ni uh, ñëw nga ci jumaa ji àndandoo ak daayira Muxaddamatul Xidma yàlla dogal itam nga ndogandoo ak ñoom ginnaaw sa ay seetlu yoo xamante ni def nga ko ci ndogu yi waaye itam ci organisation conférence yi ñu indi la fii nekk ci infirmier yi boo xamante ni bu moderne la muy barabu fajukaay. mu lool ñu koy fekk ci biir néegi yàlla yi rawatina ci jumaay Tuubaa yi ginnaaw bi nga xamante ni visité nga barab bi ñu bëggoon xam yan nga am par rapport ak barab bi waaye itam ak nekkinu ak euh, organisation bi nga xamante ni fekk nga ko ci. ñu ngi leen di euh, sant yàlla ci euh, tey lii nga xam ne teewe nañ ko di ndogoo ci biir jumaa ji te it jumaa ji ci roq yoo xam ne xëy na dañ ko daan romb te duñ ko gëstu. Euh, tey nag dugal ñu ci barab boo xam ne euh, barabu fajukaay la euh, loolu yaakaar naa ne innovation la ndax barewul fu mu am bu fekkee ne am na ñu def infirmerie ci biir jumaa ji defe ko noo xam ne day respecté itam charte doxalin yi muy bërëb boo xam ne góor ñaa fay nekk ak beneen bërëb boo xam ne soxna ya fay ne loolu lu am am solo la leneen li ñu fa ràññee itam mooy organisation bi ci biir ni ñu ko tërale ak yaatuwaay bi ak it euh, li ñu fa mën a def lépp gis nañ ne it euh, euh, wax dëgg yàlla garab yi ñu soxla yaakaar naa ne bu fa yëpp nekkul it lu ci baree ngi ci biir kon loolu wax dëgg yàlla am nañ ci mbetteel lu daan nañu def couverture màggal ci jumaa ji waaye nag def fi loo xam ne saa su nekk dafay dox saa su nekk bu màgg bu jumaa amee képp koo am xam ne am nga jafe-jafe wala nga am gàllankoor euh, ñu mën la mën a jël ci saa si jël la en charge bu la ëppee doole ñu dugal na ci ambulance yóbbu la fu ñu mën a seete loolu moom wax dëgg yàlla euh, bett nañu lool te am nañ ci mbégte euh, gis naa ne nag district am na liggéey bu rëy rëy bu mu ci def. docteur Ndeye Maguette ak ñi mu ko àndal yenn centre de santé yi. gis naa ne itam suñu rakk yii fi ne muy docteur Abdoulaat Abdoulaat. Euh, fay ñi nga xam ne moo yore clinique bi ci 28 mu ngi ci yëngatu bu baax a baax a baax ak docteur euh, Thiombane euh, ak ñeneen ñoo xam ne xëy na bu ñu nekkul ay docteur itam ñu ngi ciy def seen xalaat ak di ci def seen doole ñun nag li ci suñu wàll mooy xëy na dinaa fexe bu bu ñu waree mu daje ak ñi nga xam ne ñoo ko séq ñëpp muy district sanitaire bi muy Abdoulaye Faye ñii muy docteur Thiombane muy euh, waa daayira bi ñu def réunion bu mag bu ko defee euh, ñu xam ñun lan moo ci war a doon suñu taxawaay ñu def ko ndax euh, lépp loo xam ne wàllu wër gu yaram la suñu loxo war na ci dem xëy na lu si ci jóg sax waaye lu mel nii nag dañ ci war jàpp-jàpp gën a fis te bu soobee yàlla maa ngi jël engagement bu mu koor gi weesoo dinañ ci waxtaan te buñ ci waxtaanee ba noppi danañ ci am ay buntu yu am solo mu ngi gërëm ñëpp di gërëm nag waa daayira bi ndax lii euh, pas-pas la euh, te nii ñu koy doxalee wane na ne xam nañ ki ñu koy jëfal muy sëñ Touba waaw ci fànn yëpp nag ndax ñoom du tey laa tàmbali liggéey ak ñoom bu may nekk médecin chef de district daan naa liggéey ak ñoom lu bare bare euh, bu yàggul rek bu wéradi bi amee sëriñ bi yebal na leen ci man ñu am ay waxtaan yu am solo buñ ko jógee gis naa itam ay soppiku yu am solo yoo xam ne am na ci ak taxawaay yoo xam ne ba léegi ñu ngi koy wéyal ndax fee ñu doon ndogoo bu ñu duggee ñëpp dañu jàdd raxas seeni loxo ci ay ci anam yu am solo ndax bu benn raxasu dañuy jël satala bi sottil la defal la gel nga raxasal loxo ba mu set mën a fomp boo demee toog it di am gel ci sa kanam loolu dafa dal sama xel dafa dafa seddal sama xol ndax xam naa ne ñii ñuy jëflanteel ñu leen di wax ñor na leen ñu leen di wax euh, ñu ngi koy bàyyi xel te it am na njariñ mu ngi sant bu baax di gërëm ñëpp jërëjëf xam naa bu soobee yàlla bu maag bu euh, korite gi weesoo rek ñu daje incha allah